di leen wax ni ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm bëgg ubbeekoo salaamaaleykum wa rahmatullah e, di ci baalu ñëpp àq di baalu ñëpp àq tey ñaan yàlla boole ñu jégal a te mu dimbali ñu ñu am kooru jàmm tàmbale ko ci bismillahi rahman rahim ko ci alhamdulillahi rabbil alamin te yàlla boole ci it nangul ñu sunuy koor nangul ñu sunuy jaamu ah te gën ñu xiir ci boppam may ñu ñu génn ceeg jàmm fekke yeneen ba weesu leen yàlla nañu ko yàlla defal eh, di leen gërëm nag di leen sant ci ru secrétariat exécutif alliance pour la république mi woote tey gannaaw ba mu amalee ndaje fii ci njiitu président Macky Sall mi nga xam ne mooy njiitu parti ah ci ubbite waxtaan wi secrétaire exécutif euh, président Macky Sall muy président wu alliance pour la république président wu di njiitu réew mi dafa ñaan ñu sàkk def ñaan teg leen ko sunu maam Serigne Babacar Sy mi nga xam ni tey mooy bés bi tolloog ba mu wuyjee sunu borom. ci juróom benni fukk ak juróom benn ci ay at 66 ans ñu ñaanal ko yàlla yàlla yeesal yërmande leeral bàmmeelam ah te dëkkal ko ci aljana yi gën kawe kawe moom ak ñu ko fi jiitu ak ñu fa fekk muy sakk nag ci réewu Sénégal yàlla defal ñu tey ñu ubbee sunu réunion ak ñaan yuñ ko jableel di ñaan liñ ci ñaan def ko addiya Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, sunu borom jottali ko ñu toftal ci ay njaal njaal yoo xam ni sunu xarit sunu wëllëre muy maître Ousmane Seye di ku sorewoon ci ñun ku yàgg ànd ak ñun ku nekk ci ñun mu am ak yow diggante ak lu mu seq ak yow sunu boroom jële ko fi ñu jaale njabootam ñaanal ko yàlla it moom it yàlla tàbbal ko aljana naka noonu président de la république yëkkati ay kàddu njaal jagleel ko sunu xarit maire Fann Point E ndem si yàlla Pala Samb ñu ngi koy jaal sunu mbokki taxawu ndakaaru ñi nga xam ne moom fa la bokk di ko jaal seen njiit muy xalifa Sall di ko jaal it Barthélemy Diaz muy maireu ndakaaru te moom mu nekkoon trois troisième adjoint maire ndakaaru di ko ñaanal yàlla teeru koog njéggal ak yërmande naka noonu ñuy massaw wayjur yi gune yi nga xam ni ndaw yi nga xam ni seen bakken rot na ci fan yi weesu ci yëngu-yëngu dëkk bi ñu mun ci lim ñaar ñoo xam ni mën nañu ëmb ñëpp mooy korkasi mi gaañu ca Bignona ak Mamadou Ly ñu gën koo xam ci tur Doudou bi nga xam ni bakkenam ci gaañu gaañu yemu ca jële ca la rote gannaaw bésu alxemes bi àjjuma ji leen ñaanal yàlla teeru leen ak njéggal ak yërmande ah te xare leen aljana bi ñu paree loolu président Macky Sall di président Alliance pour la dafa yëkkati kàddu yu yu yu rëy yu fort muy kàddu dajale njaboot gi muy kàddu ñaax njaboot gi pour ñu taxaw ne temb jàkkaarloog li nga xam ne moo ne ci réew mi muy défendre république bi mooy continuer wéyal liggéey bi nga xam ni nit ñi sénégalais yi gis nañ ci seen njëriñ gis nañ ci seen yokkute gannaaw loolu mu def ni nu ko defee ñaanal ñëpp kooru jàmm waaye lépp solo ci waxtaan wi mooy fàttali gi mu fàttali ku nekk ci ñun di ko fàttali réew mi ne tey jii bu fi jàmm yàgg yàggee démocratie bu dëgg moo fi ne ndaxte kenn société bi ak équilibre bi ak stabilité bi ñaar la ci réew mi démocratie bi la république bi la waaye li fi mag ñi liggéey bàyyi ko fi moo tax ndono la ci ñun li fi mag ñi bàyyi mu dëgëral réew mi suuxat ko ñu war ko sàmm toppatoo ko ba mënu ko jébal suñuy sët ci jàmm ak salaam loolu mooy yàgg diisoo mooy yàgg waxtaan mooy it liggéeyal Sénégal ba kaaraange ne fi parce que ñun ñëpp xam nañ ni li ñuy sant yàlla mooy kaaraange bi fi yàlla defal mag ñi liggéey ci état bi toppatoo ko ak leneen donc héritage boobu ñu ñu bàyyil gàcce lay doon ci ñun puso bi ñëw suñu loxo reer dinañ ko suuxat toppatoo ko ba mën ko jébbal ña nga xam ni ñooy suñuy sët ak suñuy sëtaat bi loolu wéyee mu ndokkeel responsable yëpp militant yëpp yu alliance pour la république <coughs> yu Benno Bokk Yaakaar ak ñi fare ci coalition bu yaatu bi ma doon tudd sànq muy la grande coalition di leen ndokkeel ci mobilisation bi ñu gis ci weer yi weesu muy joxe tegtal ne fa parti bi newoon fa la ne fa coalition bi neewoon fa la ne te lañ ciy gën a rafetlu loolu dafa ànd ak yokkute boo xam ni dañu koy sante sunu borom te di ndokkeel ñi jël décision boobu dafa bare sunu mbokku sénégalais yi bi ñu jógee di yëngu ak bi dëkk bi yëngoo ñu bàyyi fa ñu nekkoon bàyyi la yoroon ñëw jokku si ci biir alliance pour la république pour yaatal pour dooleel pour kattanal donc ñooñu ñëw yokk ci tey tegtal bi ci président de la république joxe président alliance pour la république mooy nañ leen ne bisimila installé leen ci seen biiri kër ndaxte loolu moo ñuy may ñu gën a yaatal majorité bi nga xam ni tey jii amul natable ba ñu jógee ku nekk xam nu xam na ku ne naka nga toll donc majorité boobu am nañ ci yàqit ni mi ngi fi jógewu fi yokku na te yaatu na mu ndokkeel ci ñépp mu ne loolu nag bu nu ko bëggee suuxat booloo ak dimbalante jéggalante tey diisoo solidarité concorde échange daal di dëggalaat li nga xam ni moo fi ne ba tey ci biir xolu benn bokk yaakaar ak ci biir xolu grande coalition la majorité présidentielle fa la alliance pour la république sax fa la ne te dara du ko fa jële donc loolu dañu koy fàttaliwaat di ñaax nit ñi di leen sunu alliance bi alliance pour la république def ci am rôle bu important te mi ngi woo ñëpp ku nekk joué ko ci déggoo ci dal ci ubbeeku ak ci mën a waxtaan ak ña nga ko bokkal ba mu paree kàddoom li ñuy tënk ci secrétariat exécutif wax ko bi ci jëkk mooy secrétariat exécutif ñëpp ci benn kàddu tënku ci ndokkeel ko ci li xam ne liggéeyal na ko Sénégal ci Union africaine mais liggéeyal ko Afrique ci biir àddina ñu ne la ñu ciy jàpp jaajëf la ñu koy wax ndax liggéeyal na Afrique waaye liggéeyal na senegal ci biir présidence ba mu yor Union africaine te gis nañu ko tey jii fi Afrique toll nekk na kër goo xam ni fépp fu ñuy waxtaane avenir u monde bi teew na ba tey jii siège ba mu war a am ci Nations Unies wala ba mu war a am ci G20 dafay yokk dayoom pour mu mën a bokk ci waxtaan wi nga xam ni def nu concerné loolu yàlla moo ko def mu tombe ci ayu Macky Sall mu gàddul ko Afrique di ko dox di ci wax ba am ñu ko ci jàppale nangul ko ko ba ñuy seet léegi naka la ñu koy waajale ba mu antu donc ñu ndokkeel ko ci loolu ndokkeelaat ko aussi ci jàpp teewu baay bi mu def ci jublu ci saafara soxla askan wi ñaara ko soxal naka la ñuy yokkee bien-être population yi maanaam naka lañuy def ba saa su ne sénégalais bu ne yokk tuuti ba yëg ko yokk lu bare ba boole ci keneen naka la ñuy def ba saa su ne dox ba ñuy dox jëm ci émergence kenn duñu gestuloo kenn duñu faagaagal ndax détermination ak gis-gis bu leer ak yéene ak am lu ci rote te kenn mënu ko natable bu ñu neexee ñu tënk ko ci wàllu bilan dañ leen woo ci jamono. gën a waxtaan ak yéen ci wàllu bilan ba nga xam ne dootul am lu ci natable moo tax ñu am yéene woo leen waat pour ñu daje waat ci faram-fàcce bu mel noonu pour ngeen am loolu leen gën a mën a yóbbaale. ah donc la cay des boo do ndokkeelee daal di koy wan ni ko taxaw nga tem ni mu la ko laaje sa kóolute yeesalaat nga ko te fas yéene nga ànd ak moom jëm ba ca kanam. beneen bi nag secrétaire exécutif bi ñu xayma. fi ñu toll ci njaayum carte yi félicité superviseurs yi ak commissaires yi ci ne parce que am na fuñ ci tollu foo xam ni soreetuwul lañ ci doon diir ñu ne kon nag nanu ko gën a baral muy carte yi nanu ko gën a baral muy comité ñu war a monter ci biir loolu it nañ leen continuer taxaw ci dynamique de mobilisation bi ñu amoon dëgg la koor gaa ngi fi mais bu kenn bàyyi nañu continuer parce que liggéey bi loolu la loolu mooy lañu ñu yóbbu ci ay ndam bi ñu duggee ci élection ba léegi. secrétaire exécutif nag dellu na gërëmaat sunu kilifa diine yi bu baax a baax gërëmaat force sociale yi gërëm population yi ci engagement. ci engagement bi ñu am daal di tànn ni ñoom Sénégal réewu jàmm la te jàmm lañ fi bëgg loolu mooy li sénégal yi di wax loolu mooy kilifa diine yi li ñuy dox loolu mooy force sociale yi li ñuy dox parce que ci jàmm ci ngay mën a jàngee école ci jàmm ci ngay mën a fajoo ci jàmm ci ngay mën a liggéey ci jàmm ci ngay mën a toog dajeeg ñu mel nii wax leen la nga xalaat ñu daal di koy tasaare ci réew mi donc jàmm ci la la ci xam ci la lépp xaj te lu dul jàmm jàmm moo ko gën donc loolu dañ ci ndokkeel sunu kilifa diine yi ndokkeel ci sénégalais yi ndokkeel ci it li euh, nga xam ne ñooy force sociale te loolu it nanu ko déggee mooy dañu ko teg ci état de droit teg ko ci démocratie te loolu dafa dëppoo ak lii démocratie parce que démocratie du xëccoo kese am na jongante waaye li ci waxtaan la naka la ñuy waxtaanee ba mën a trouver équilibre ci biir société bi loolu mooy sunu engagement waaye nag ñu taxaw daal di ba ñu waxee loolu ba pare am na lu ñu wax moo di alliance pour la république ak ñamu àndal du ñu nangu mukk ku salfaañi réew mi du ñu nangu mukk ku jaxat-jaxatee démocratie bi du ñu nangu mukk ku nasaxal république taxawaay bu wóor lañ ci am te ñu ñëpp ñoo ci ànd la ñu nag mooy ñaanal ko yàlla gërëm ko ñaaxaat ko moom ne ko bésu tey bi dafa am solo ci ñun ndax ñaar tey lañu ñu njëkk def suñu secrétaire exécutif national ci suñu siège bu bees bi nga ñëw jiite ko mu dëppoo ak bés bi nga xam ni en 2012 ci la la sénégalais yi jox confiance nga nekk président de la république du Sénégal ñu ñaanal ko succès ñaanal ko aussi avenir bu yaatu bu leer nañ loolu mooy lu ruusoon ci suñu waxtaan euh, ñu leen di gërëm den sant te di leen wax ni leen dinañ leen woo comme ni ma ko waxee ci jataay bu gën a yaatu ñu faram fàccee parce que dafa am lu bees suñu bëgg di commencer diggee ak yéen ci suñu communication mooy di ubbi ay waxtaan yoo xam ni dafay gën a yaatu sax relation traditionnelle bi ñuy am point de presse journaliste posé question dañu bëgg ubbi ay jataay yoo xam ni ay ëttub waxtaan la ak weccee ak journaliste yi pour gën a déggoo ci li nga xam ni moom la ñuy wax ñoom ñu dégg ko ñu ni ñu ko bëggee waaye ñoom ñu jàngat ko nu mu leen neexee parce que loolu mooy euh, journalisme gërëm leen sant leen den wax bon ndogu et bon ramadan à tous et à merci